kon mbokk yi bu nu seetluwaatee waxi jàmbaar joojoog wax jooju mu wax lu doon ay tonti amagoo ci kilo jeexagul xaajagul tàmbalee goo ko sax kon luy ndey wuti feneen ak laqar ci leneen léeg-léeg ngay dégg ñu ni la diw noonu sëriñ bi la li muy yàq wallahi bu ma ko doon wër du ma génn sunu biir nun waxkat yii noo yées li nuy wax ni mu mën a yàqe waxunu lenn lu dul màbbu li fi sëriñ bi doon tabax bu jafeñalee nu yombal bu yombalee ñu jafeñal lii la nekke ndax loolu mën nga indi benn xeex bu gën a garaaw boobu amul benn xeex bu gën a garaaw boobu amul mag ñi tiitoon ragaloon comme ni nu ma wax léegi Cheikh Mouhamed Lamine Diop Dagana ku ne xam na nii mu demee woon ci Serigne Touba ni mu jegee woon sëriñ bi mbindam ni mu ko jegee woon nga xam ne li ci ëpp ci loxoom lay jëkk a jaar moo wax ni mësuta a dégg benn béyit bu jar ree boo xam ne nii danga nga cee war a kontaan bare ree nee na xamu ko ndax mbokk da koo gën a xam béyit yi fooguma ko de. dañoo nattalee laaj ko benn bayit kullu muridin bi yalloosu fa yalloosu yasaadu fa innahu min al aza mubahadu waaw boobu bayit jërul fecce waay sëñ Mouhamad Lamine Diop na ne bi bayit boobu ma jooyloo moo ma tiital ñu ni ko lu tax nga tiit mu ni damaa xamagul murit la maam déet examen boo xam ne ni at mi loo ciy fecc demal ci université bi bu gaa yi xaar pro yi doo seen kenn ku fecc de te jàng nañu ba dee waaye ñu ngi ne yogg yoggooral lu ñuy xaar ñu joxe pro yi bu ñu bu ñu tuddee ku ku at mi rekk yuux ya dal daa di songoo defu ko woon bi muy xëy si de loolu mooy résultat kon résultat bi jaroon ñu fecc mooy ëllëg ëllëg ëllëg boobee nga xam ni sëriñ bi dafa war a puukurewoo sa jëmm yow de bi nga fi nekkee li ma wax mosoo cee teggi dara li ma digle mosoo cee teggi dara li ma tere mosoo cee bàyyi dara loolu mooy résultat bu baax bi nanu fexee am résultat boobu mag ña foofa la ñu nekkoon de xamuñu woon askan déedéet mosuñu ko tudd seenu làmmañ mosuñu ko tudd seenu làmmañ ku mu neex nga dem tas vidéo yi ku mu neex nga dem diglu jitaay mag ña laa wax ku ci mas a dégg ñooñee wax lenn lu jëmul ci yàlla bu ñuy wax ci sëriñ bi wallaahi xawu ñoo ñimee tudd tur wi ku baax keeg ku tedd ci rekk ànd akuk dal léegi la rongoñ génn waaw mbokk yi ndax dañ leen a gën a xam sëriñ bi ndax dañ leen a gën a xam yàlla lay dañ leen a gën a bëgg àddina rek bëgg àddina dafa fees lool lool bëgg àddina googu nag yóbbu dan ci yoonu sëriñ bi dañu ko jàddal ba ni mu ko tuddee woon muy lislaamu kese nga bëgg koo def muy matérielu kese mu ngi mel ni jumaay ju réy ji kaar boo ko defan tey muy barab boo xam ne ni wisit rek lañ fiy def xool fotowu bu boobaa ndax ki ko tabaxoon di Seex Sidul Muxtaar radiyallahu taala bu dellusee du wuti yet jël ay miliyaaram def ko ngir lan li iqaamati salawaat taxawal julli juróom yow nga tudde ko neneen def ko neneen faade woo ko sax boo fi dugg doo jàpp doo fay say portaabal dangay mel ni man rek ci koor gi dafa dend jenn waajoo xam ne nii li ma tax a gën a mere appareil yi saa bu ñu sëlmalee benn sëlmal li muy gàtt-gàtt ci diggante bi dana fi xool message bi <laughs> subhanallah mbokk mi waaw loolu ndax nag du musiba ci réew mi moo tax naa sunu sëriñ sëriñ Soaybu yey nanu ba mu nuy tere ab rajo dinu tere télévision ndekete woo lu ko gën a garaaw a ngi ñëw te moom daa xamoon ni yu ndaw yooyu loo ci def bis dina ñëw nga def lu ko gën a rëy bis dina ñëw nga def lu ko gën a rëy kon nag bokk yi appareil su ndaw soosu tey li yor ci xiiwal nan ko jëfandikoo bu ngeen xaman li ci nekk ci ay téere yu ñu mën a jàng li ci nekk ci ay boroomi xam-xam yoo xam ne boo leen laajee ñu tontu la bu ngeen xaman loolu foo ko taale loolu ngay jëkk a def boo xëyee sa kër bala ngaa xëy jël bind bala ngaa xëy jël bind te jàng képp nag moom la ñu sëriñ bi digaloon ak jëfe li ñu jàng amul beneen digal bi ci def lépp noo ko sos rek ki ma ko nettali jàpp naa ne ñi ko ëpp daraja ci yoon yu bariwul mooy Cheikh Saliou Mbacké ñoo toog te li may wax day am seere mën naa am ki ma ki ma seere mi ngi ci jàkka jitaay bi mbaa julli si na mbaa julli si woon na keroog muy sëriñ Modou Xabbaan moom sëñ Fallu Mbàkke noo bokk toog sëriñ Saaliwu nii sëriñ Tuubaa lu mu def alxuraan a tax kon nag boo doya dalee alxuraan doya dal nga sëriñ Tuubaa nee na bu taalifee sax alxuraan a tax bu bayee alxuraan a tax mu wax ni dafa am noon bu mag bu ñuy wax iblis du maroog moom mukk maanaam du juboog moom waaye bayit yii muy bind ngeen di ko jàng muy bayit yuy dàtt iblis lam yan oni yu ni gàññi gàññaaral nee na moom lay jàng iblis dandu mu jël téere bi kon téere bee ko tax a jóg kon faw am murit day fonk alquran xam nga waxoon naa fi benn kull bu ñépp di fetasu kullu muridin bi yaluusu fal yudib ndax moom fetasu nañu Sëriñ Tuubaa dafa waxoon kullu ni bépp murit bu aju ci man texe nga tey ak ëllëg gaa yee fi mu jëlaat même même baat même phrase ni kullu muridin bii yaloosu fal yu dim tilawatan li xayri sikrin xadrusin ku aju ci man te muy dëgg fu ñu la fekk na nga yor alxuraan di ko jàng te di dégg maanaam yi waaw ñaari kulu yi lu leen wutale ndax ñaari jëm a ko wax kenn kee ko waxoon te lam waxoon la nekkoon njabootam ci lañu nekkoon njabootam ci lañu nekkoon nit ñee dàq nettali ci àddina bi ñoo dàq kër yi ay xalaat waaye indil ma fi benn doomu sëriñ tuuba boo fekk muy toog te jàngul alxuraan mënoo koo am du góor du jigéen kon déggoon nañu la sëriñ ba wax tey nag dem nañu ba am ay falsafa yoo xam danañu àgg ci ni xasiida gën a màgg alxuraan wala yaasu billaah yàlla bu ma ko dégg man àgg ci ni euh, mooy seen sëriñ sax léegi waaye nag kon dañoo gën a muus ñoo gën a xam Cheikh Mouhamadul Fadil ñoo gën a xam Cheikh Moustapha ñoo gën a xam njabootu sëriñ bi sëriñ bi fooguma ko nag dama jàpp ni rek bànneex la mbokk yi nanu dimbali sëriñ bi waaye ci taxawal ko diineem ji diine ji mu ne woon dama fee ñëw ngir yeesal ko képp yeesal mooy lan lu fi amoon la waaye sosul yonent bee ñëwoon di woote gaa yu baax yi ñëw ginnaawam di ko jotti woote bi di ko jotti lil woote bi noon loolu la waxoon nee na ku fekke nag ma ko jotti ku fekkewul loola moo dugal ku xam nag ma jotti lil ku xamul foofii la sëriñ bi nekkoon te dara du ko fa dindi koo dégg mu ni dafay wax ci sëriñ bi lu jaaduwul la mu wax noo ko wax la waajoojee di kontor noo ko wax sëriñ bi waxu ko amul benn boroom xam-xam boo xam ne ni teg na téereb sëriñ bi tiim ko jàng arab xam ko wane ne sëriñ bi lii mu wax naa nga nangam ak nangam amul waaye bu nu waxee suñuy najoore ci mbedd mi benn waay di ko ko même nun ci suñu bopp noo ko war na di ko kontar benn boroom xam-xam dafa wax ni ñaar a ngi nii ñoo bokk lu ñu wax waaye bokkuñu am noon ak soppe bu mer am noon mën na laa saaga soppe bu mer dikk répété saaga wi bul bokk primi de bokkuñu ñu ne ko lu leen wutale mu ne noon bi lim lay ayibal day bëgg mu continuer boo ko bàyyee sax mu mer soppe bi lim lay ayibale boo ko bàyyee mu kontaan lii rek leen wutale kon soppe bu mer dana wax lu jàdd lu jaarul yoon waaye wallahi bis boo ko bàyyee nga xam ni waajaa def soppe waaye noon bi li mu lay waxal lu mu ne woon seew saa bu xëyee gis muy gën a yokk foofu nag moom la nekk foofu la nu nekk waaye sëriñ Touba benn doomu aadama bu xam laa wax bu xam bu koy teg ci deram lu ñaaw amul waaye nag waxkat yi bu ñu waxee ba àggal au lieu yow itam nga yemale wax ji ci ki wax nga ni murit yi ba romb ko ba dem ci sëriñ ba te fekk seex gi képp wax tontul seex gi mii wax moo waxi najooreem moo wax ci sëriñ bi loo xam sëriñ bi waxu ko doomi sëriñ bi waxu ko kenn ku jige war sëriñ bi waxu ko moo ko ker ye bër ci démb ngir bëgg bës danoo bëgg tàccu nag tàccoo pitasu danoo neex lool lool lool te dara baaxu ci nag jay baaxul jay dafa xaraam boo ko defee yàqal nga ki nga koy def ndax bu mënul boppam du téye boppam ba xam ne dañ koy jay dana ci sànku te sëriñ Touba nee na xam nga ku dib dofa mu ne ki nga xam ni daa fekk lu wóor mu bàyyi ko fa jàpp ci lu ñu sopp lu ñu so lu ñu lu ñu ah lu ñu lu ñu jort waman yada yaqiinahoo limal wara yasunnuhoo fiihi fa xumrun suukara sëriñ Touba nee na ab dof tigi mooy ki nga xam ni li ko leer la bàyyi jàpp ci li gaa yi jorto xam nga li nga jortoo sax moo tane waaye li gaa yi jortoo ci yow da naan seex ji o jàppoor la ak a mën a jàng ak naa nga mën naa nga te ma xam li ma xamul ak fi ma yem loolu moom daa leer nañ ci man waa ji nag lii muy wax ci man da koo jortu kepp bu ma dofee nag ba topp loolu bàyyi li ma xam Serigne Touba nee na dof buy gëmmentoo ngoog dof buy gëmmentu mooy kooku lu gaa yi mën a wax dellul ci sa bopp rek laaj ko xam nga li nga xam xam li nga man yemal foofa bu gaa yi yëkkatee ba dem asamaan it nañu wàcc rek fekkaat la ci suuf gaa yu baax yi noonu la ñu meloon foofu la sëriñ bi doon digle wax na ci fi muy jàngaleeg taalu bi donte kenn du ko firi téere bi nga xam ne moom moo jàngaleeg taalu bi biir nag muy uqal bu kaw yaakaar naa ni sëriñ Isa dana ko boole ci leçon yi ndax ku nekk ci biiri taalu bi di jàngale boobu téere war na jiitu ndax la mooy jàngale ak taalibe taalibe gi sëriñ bi wax laa wax de waxuma ne gi ma wax man man gi may wax ngir bëgg nga tàccu ma ak ngir jox ma dara damaa bëgg nga tàccu ma bëgg nga jox ma dara damay tappale rek waaye du dara waxuma dara ni ma gise <laughs> ni ma ko yëgee waaye yow de waral ngaa toog sa kër sëriñ bi moom comme am nga sa gis-gis ak sa yég yëg dooye wootoo ko dara waaw léegi nag oqal bu kaw lu mu fa wax nee na gaa yu baax yi gaa yu baax yooyu bu ñu demee ba nga laajoon leen benn laaj dafa tagg seen melo tagg leen a tagg tagg tagg ba ñu nekk ca kaw mu ni ñii nag seen melo yu rëy yépp ak li ñuy kawe lépp ak li ñuy baax lépp boo yéene woon ni kan moo yées ci àddina ku ci ne fëgg ab dënam ni maa ngi nii bu jël fenn maa ngi nii te kat sëriñ bi nee na ñoo gën ci àddina bi ba àgg ci ni sax ñooñu kuy liggéey ñoom nga war a liggéeyal kuy sopp ñoom nga war a sopp kuy joxe àddina ñoom nga joxe àddina ba <laughs> bayit boobu nag dañ koy dagge tuuba li abdin muridin saadiqin lahumu bi xidmatin aw bi xubbin aw hadiyaati bayit la boo xam ne ni lu ëpp ñaar fukki bayit jiitu na ko ba tax wax jee jóg waaye dañ naan ni ko joxee tegal la ni la lii la sëriñ bi wax daal di xool sa bopp ni man mii la ci jublu man mii la ci jublu jublu wu la de ñamu jublu mooy ña nga xam ne yan saw na sal salma wala lay laa fi qiyaamihim moo ko waxal boppam nee na ñi ma jublu mooy ñi nga xam ne dañoo bàyyi woon àddina fàtte bànneexi àddina fàtte lekk ak naan jàpp ci alquran jàpp ci sikar yi jàpp ci julli yi ba taluñoo nelaw taluñoo lekk ñoo ñuy laa doon wax ni ku leen liggéeyal dem nga ku leen bëgg dem nga ku leen jox addiya dem nga waaye waxul am seex gay muy caaxaan rek loolu moom waxu ko kooku moom waxu ko nañu jàng téere bi ba mu àgg xasiida la bu am solo boo xam ni jàngkat yi war nañ koy jàng jàpp naa ni nag nii nu dajaloo ci jàkka ji fa tabarakallahu yàlla fay leen di def lan ngir joxe farata yàlla ji yell na it nag ñu di ko defee noonu ngir xam si farata yàlla ji jàngalekat yaa ngi fi bari lool Serigne Issa Gueye boroom xam-xam la am na ñeneen ñu toog di ko seetaan bis bu demoon ba nit ñi ëpp ko ñooñu dinañu dugg ci géew bi di jàppale ko nii boo demee jumaa yi Touba yéen ñëpp a ngeen jànge daarul maarif xam ngeen ko lañ ko ubbi def fa boroom xam-xam bu mag bu ñu wooyee sëriñ alxaaji jaxate way lool gëm ndigal lool gëm ndigal xam nga gëm ndigal mooy lan 1963 ba ñu ko nee toogal fii di jàngale ak bisub ajjuma tey bi yem boo ko demee fekk ko kan moo def toppee noonu ndigal ci noonu rek nanu wax dëgg ku ci toppee loolu ndigal 1963 lañ ko joxoñu baram ni ko toogal fii di jàngale dégg naa mu ni loolu damaa yóbbe ci bu ma fi toogee xam lu bari bu ma fi jógee dootuma xam dara kon ndekete toogal fii ja daraa nga ca biir tey la fa jóge ci ay boroomi xam-xam kenn xamul nu ñu toll boo doon din lim ci tuubaa tey ak saxaar ngay tegale te mësoo ko gis ci écran bi mësoo dégg ñu dajaleel ko dara mosoo dégg ñu wooteel ko fenn dara ngir lan boo ko defoon samu lànk day bañ nga yàq daraam bul yàq liggéeyub yàlla foofu la gaa yi nekkoon démb mbokk yi kañ lañuy kañ lañuy dekkalaat dëddu àddina googu nga xam ni moo sosoon yoon wi bañ àddina googu nga xam ni moo sosoon yoon wi yi appareil yii nax nu bu taxawee kenn ku nekk bëgg a feeñ ci kanamam caméra bi caméra caméra xam nga ki gën a texe mooy ki caméra bi teggi ba bañ ko wone kooko am sens kooko am sens waaye léeg-léeg sax dégg naa ci cérémonie yi gars yi daan jox ku yoreb appareil pour mu feeñal la bu rëy rëy wala yaasu billah mbokki jullit yi ndax foofa booba xam nga ki ngay ki tax nga toog fa ki tax ba toog fa moo doon nëbbatu ci gott yi moom lañu ñu fàkke ba fekk bakke ba wal mu xumb mu dem daaru salaam mu xëmb mu dem Touba di jéggat ba dem ci yéen ngir rek daw nit ñi kooku nga ni moom ngay roy yow nag fu nit ñi dëlle foofa nga jëm fu nit ñi dëlle foofa nga jëm bëgg ñu yëg la bëgguñu gis la xawma lu muy jariñ ah seede daal moo am solo bi may nettali léegi sëriñ Modou Xabbaan mi ngi nii far toog nun duñu fen danoon ko moytu lool ba nu sëñ Saaliw wuy wax nii Ah, Serigne Touba lu mu def alquran a tax lu mu def alquran a tax bu taalifee alquran a tax leneen lu mu doon alquran tax ba indi bayit yu bari lam yan uyi lam yan uyi yu baree bari mosumaa gis ko mokkale noonu ay bayit yu bokkul xasiida yu ñu nekk kon yal nañ ko yàlla fayal dimbali nañu bu baax a baax barki démb wax naa ko ci télévision bi bi ma invité benn xele bu def benn livre ci miraas ak yeneen livre yu bari ma ni ko damaa bëgg nga limal ma ci Touba ay bindkët waxuma nag ku juddu bu yàgg ñooñu moom dañ leen di teg ba ci kanam waaye diggante quatre-vingt ak léegi ñi fi juddu te bind am na ci ñu may jàkkaarloo ci sàppe yi bind ay livre yu ni gàdd ca mbaar ca naaj wa léeg-léeg du ñu amul dépense waaye duñ ko wuti de buñ ko wuti woon du ñu xam dara buñ ko wuti woon bu ñu xam dara ligsi bii day tas daara na ngeen ko moytu yéen boroom daara yi ligsi day toj day tas daara bâtiment bi rafet lekk gi neex kat-kat yi taxaw nga toog ci daara ji doo fa jóge na fa sëñ sooy bu toogee woon xam ngeen ni mënta am laajal mbokk yaa ngi nii teew ña toogoon ci suñ sooy bu ma saa xëy sol fox yaam bu woyof boobu yor kurusam googu waaxu wuti mbaar ma toog ci piliyaanam boobu xele yu xeeñ wër ko hmm. dama bég daal li ma bégee mooy li may wax ñi ko teewe woon ngi nii ñi ko teewe woon a xele yu xeeñ wër ko mu muñ xeeñaay ba muñ tàngoor wa ba tey jii alfatail taxaraju min yadihi sarifa boroom xam-xam yu mag yi génn ci loxoom looloo ko ko may yal nañ ko yàlla fayal ak lan ak liggéeyal sëriñ bi ndax sëriñ bi moo ko ni wan na nga ma liggéeyal ci alquran ñoom ndigal loo leen wax jërul yeesalaat yeneen yàlla fayal mag ñi te dëgëral nu te def ci suñu xol bii ak bàyyi àddina te jéem a topp yàlla bégal sëriñ bi ba bu nu séenee xam ni li mu digle woon wàccaguñu ko te yàlla buñ ko wàcc yeneen yàlla boole defal eh, topp tey ak ëllëg te defal nu tawfiq musal nu musal jaam yépp ci mbooleem musiba yi yàlla indi lu nawet bu barkeel bu mat sëkk boo xam ne li sëñ Abdou Khoudous daan wax bu nu ko yoraloon suñu bopp fan koy yóbbu yal nañu ko fa yàlla yóbbul bi jaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam noo ngi jégalu ñëpp nag wax ji daa xaw a ñàngi waaye comme ci tuuti noon ngi lay jégalu léeg-léeg nit ni man lay wax bu ma la waxul juum naa wax ji bu dalul ci sa mbagg waxoo dëgg kon waxuma dëgg benn yoon alxuraan ay wax yonent bee wax Serigne Touba ay wax te kenn du ci borom daraja ci kanamam yeneen yàlla boole defal dégg wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu